ñi bëgg a ci ay caaxaan maanaam tey gouvernement bi dina génn am information yoo xam ne daf ko indi au lieu ñu indi démenti bu leer ak ay document dañuy génn rek dem ci ay télé comme ay mercenaires lañu et ils sont payés ñu wax du n'importe quoi gis nañ ci kenn ku ñu convoqué tey cybercriminalité te ñu leen di tàcc bu baax a baax gis nañu aussi sax kenn koo xam ne boo leen fàttale ko mbiru Tilo Oil yéen a ngi fàttaleku mbiru Tilo Oil c'était amplifié par deux journalistes donte dañu jël beneen journaliste boole ko ci ak yeneen journaliste mais ñaari journaliste sénégalais ñoo ko amplifié woon ñaari bandi kenn ku nekk Sénégal ak kenn ku nekk fii ci Amérique boo xoolee ki nekk Sénégal keroog bi gouvernement Sénégal génnee def li ñuy wax mooy mise à point mise au point wax li ñuy wax mooy euh, lépp loo xam ne moom la ñu gis ak ni gouvernement bi di doxee biñ ko génnee dañ ko teg sur la table pour wax sénégalais yi l'état des lieux du Sénégal maanaam lépp loo xam ne moo nekk di dox li ñu nekk di doxal ak li leen gàllankoor ak li manqué ci réew mi ak li ñu soxla ci réew mi bi ñu tegee lépp da nga gis benn beneen journaliste bi beneen mercenaire bi génn dem ci benn télé mu ne le gouvernement bi wax yëpp du dëgg tey cybercriminalité woo na ko na indi preuve nag bu indiwul preuve warul ñibbi këram parce que réew pour mu dox il faut se faire respecter ñun li ñu doon xeex mooy pour réewu Sénégal am respect pour réew mi mën a dox ci respect muy Ousmane Tounkara ak muy Demba muy Massamba bu ñu indee ay information jëmale ko ci réew mi te du dëgg nañu indi preuve bu ñu indiwul preuve kii nga xam ne moom moo indi information bi ñu tëj ko ci biir kaso bi parce que nag nit waratul mën a nekk ci réew mii ñu jël ay milliards di la jox ngay fen di wax lu la neex loolu dafa war a jeex ci Sénégal boo nee journaliste nga dem nga jàng xam nga lan moo la tënk ci journalisme président Ousmane Sonko waxoon na leen ko fi temps yi passé boo leen ko dégloo waxoon na leen ba wax leen article treize ci journalisme ne la dañ la jàngal nga war a jël ay information traité ko teg ko ci dëgg mais nag doo dem rek toog ci ay télé télé bu wax rek nga génn fu ñu la tàllalee micro rek nga génn di waxul dëgg ak di wax na dëgg président Ousmane Sonko keroog loolu ñu def ci gouvernement bi du lu ñu inventé c'est des dossiers c'est des chiffres qu'ils ont mis sur la table léegi nag kuy ñëw di démentir loolu il faut amener des dossiers et des chiffres pour les démentir waaye mënuloo toog sàcckatu milliards yi sàcc suñu ay milliards di leen fay ngeen continuer toog di alimenter ay faux débat dem di toog ci ay ginnaaw tele di nelawal xelu sénégalais yépp à leur totalité loolu moo war a jeex ci Sénégal keneen ki nekk Amérique dégg ngeen ko barki Dembo Ndiaye démb la génn def benn vidéo lu mel ni le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye di wër ci àddina bi gis ngeen ndajeem bi mu comme ni ma leen ko waxee bi mu amee fii ci Nations Unies kàllaama yi mu yëkkati fii ci Nations Unies c'est parmi les les choses les plus importantes de notre histoire maanaam Nations Unies bi mu fi ñëwee maanaam kaddu bi mu yëkkati c'est plus maanaam ci kaddu yi gën a important ci histoire Nations Unies la bokk ndax débat bi àdduna bi yëpp reprendre nañ ko ba gis nañu boo leen bëggee dégg-dëgg gis naa ba ndeysaan ay imam yi ñu respecté dans les réseaux sociaux ñoom ñëpp ñu génn di wax ci waxu euh, Bassirou jomay Diakhar fay bi ndax vraiment il a il a ramené la fierté chez parce que wax dëgg yàlla ndeysaan man de bi ma ko déggee j'étais très fier bi ma ko dégloo ndax maa ngi toog first hand di ko déglu léegi nag mu am sax ndeysaan ay imam yoo xam ne au niveau international dañu génn ñu indil ñu li nga xam ne moom mooy débat wu Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi léegi nag lan la benn journaliste euh, du journaliste sax kooku du journaliste moom amul benn dossier journalisme ah. dama leen koy wax rek yéen ñi xamul pour ngeen bàyyi ci xel amul benn document journalisme boo xam ne mën na koo teg ci kaw table voilà xool leen débat Bassirou Diomaye Faye bi imam marsul xoolal boo leen xoolee mi ngi am ay millions de vues la am by the tragic situation playing hmm. out in Palestine. Entire generations have grown up in Palestine uh, in the shadow of oppression. They are deprived of their fundamental right to a viable state. Senegal. imam bi imam bi déglul imam bi moo indi affaire jomaay bi mi ngi nii il a trois millions de followers sur Instagram xool trois millions de followers la am sur Instagram trois millions de followers moo indi débat Bassirou Diomaye Diakhar fay bi boo leen ko xoolee mi ngi nii ci page am trois millions de followers la am mi ngi nii li mu wax mi ngi nii Diomaye a ngi nii li Diomaye wax boo leen xoolee waa ji il trois millions de followers mi ngi nii donc pour vous dire seulement li ñu am ni mu spéciale maanaam adduna bi yëpp ñu ngi bàyyi xel benn ndaw bu mën a taxaw ci kanamu Nations Unies pendant les cent quatre-vingts et quelques présidents du monde mu ñëw taxaw mu am jël ay responsabilités am ndax jub jubal jubbanti mu mën a wax dëgg àdduna bi yëpp dégg ko benn délinquant boo xam ne dix personnes toppuñu ko Amérique dix personnes toppuñu ko ce délinquant de je ne sais quoi du journaliste ah c'est pas un journaliste il s'est transformé en spécialiste de pétrole Macky Sall jël ay milliards doxal ak moom mu noppi disparaître fi mu ne xaalis boobu nga xam ne moom la ñu jo jëloon jox ko dafa jeex bi xaalis bi jeexe lan la def daf ko jël sànni na le léegi commencé waat génn di indi ay sos di ko teg ci bopp gouvernement Sénégal bi dama bëgg ngeen xam ne Amérique comme ni mu amee loi Sénégal ni mu amee loi noonu la Amérique amee loi une personne qui se, qui se déjà, qui se dénomme journaliste, un prétendant journaliste ki n'est pas, maanaam faux usage de faux lay def déjà, le gouvernement du Sénégal doit prendre les responsabilités. cybercriminalité jël seen responsabilité. waa ji bu tegee tànk ci Sénégal dóorkat la moom international ndax àdduna bi yëpp xam nañ ko bu tegee tànk ci Sénégal ngeen convoqué ko newuñu ngeen jaay kenn doole amul jaay doole. waaye jub jubal jubbanti lañu wax parce que imaginez le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye di wër àdduna bi di wut ay partenaire pour Sénégal ndax Macky Sall daaneel na réew mi di def lépp lu mu man pour Sénégal pour suqaliwaat suñu démocratie suqaliwaat li nga xam ne mooy suñu économie bandi bi toog fi mu toog di yàq Sénégal di yàq deru Sénégal di sosal Sénégal Sénégal lu mu def lu baax mu def ko le contraire Sénégal lu mu indi mu indi safaan wa loolu dafa war a jeex ci réew mi on travaille sur l'intérêt général di Sénégal waxuñu intérêt Ousmane Tounkara de Sénégalais yëpp xam nañu lii ndax ku toog sa biir kër tey gis nga ma taxawaay bi ma amoon laa taxaw laa am taxawaay bi keneen amoon la am ñun nekkuñu fi pour des intérêts personnels mais les intérêts de notre pays di góor góorgóorlu pour suñu doom yi bañ a jëlati géej gi di góorgóorlu pour société yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew parce que nag ñun dañu arrêté woon hémorragie bi nga xam ne moom la Macky Sall doon causé parce que Macky Sall causé de l'hémorragie ñun ñëpp ñu ñëw ñu baare yoon bi ñu arrêté boobu hémorragie pour lan pour incha allahu rabbi bis bu ñuy jëlee ñu encouragé waat bailleur de fonds yi encouragé waat investisseurs yi te ñu ngi ciy liggéey lu bare bare pour ñu ñëwaat investir suñu réew Bassirou Diomaye Diakhar Faye loolu lay def lan la bandi bi génn wax mu génn ne adduna bi Bassirou Diomaye fay day yaataa yombe day jël avion présidentiel di dem fii di dem fële dem fële mu ne Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Diakhar fay bi mu faloo ba léegi lenn rek moo ko intéressé mooy fexe lépp lu mu man pour indi waat respect ci Sénégal mi ngi koy def à travers ses discours mi ngi koy def à travers ses présences dans les autres pays indiwaat li nga xam ne mooy bailleur de fonds yi indil ñu ay contrat yu bees pour ñu mën a doxal suñu réew ndax suñu réew dafa soxla kom bandi yi lan la ñuy def ñoom ñoom comme ay mercenaires lañu te kale moo leen fay ñoom seen benn objectif mooy lan mooy nañu fexe lépp ba Sénégal bu mu génn ci guuta gis ngeen journaliste bi ñu euh, du duulkat boobu ñu woo fan yi du journaliste sax mooy dof boobu ñu woo euh, kër dof yi Kader il a été convoqué et c'est très bien il faut que suñu euh, homme de tenue yi ngeen jël seeni ay responsabilité boo leen amee ay nit yoo xam ne doxuñu ci intérêt réew mi te intérêt réew mi yéen ci ngeen di fayeeku ñun ñëpp ci la ñuy liggéey ak keneen ak keneen ak keneen je pense que yu mel noonu saa bu amee da ngeen war a jël seeni ay responsabilité il faut convoquer les les les donneurs de fausse information ñi nga xam ne aussi gouvernement bi day ñëw di bëgg liggéey di suqali ñi nga xam ne ñoom yàq moo leen jóg di yàq intérêt général parce que Kader li mu wax keroog ki ko déglu dafa doon encourager jeunes yi pour ñu continuer jël géej gi nee na moom euh, réew mi doxul doxalin boo xam ne moom jaral na ko sax njabootam mu dugal leen ci géej gi donc ce qui veut dire que il encourageait ces jeunes yoo xam ne ñun ñu ngi leen di décourager pour ñu jël géej gi pour ñu jël ndox mi donc Kader li mu wax àdduna bi yëpp dañ ko dégg. Cheikh Yérim Seck tamit li mu wax àdduna bi yëpp dañ ko dégg gouvernement Sénégal moo jóg imaginel gouvernement moo jóg mooy ministre de l'économie premier ministre. ministre bi ministre bële ministre des finance tamit joxe ay dossier ñu dem toog def mise au point Cheikh Yérim Seck ñeme taxaw ci kanamu àdduna bi yëpp mu ne gouvernement bi li mu wax du dëgg mais na apporter preuve bu apporter preuve bàyyi leen ko mu fanaani këram ndax am na ci droit bu fekkee gouvernement bi dafa wax loo xam ne du dëgg te moom mu am ci preuve na indi preuve yi mu teg ko sur la table ñu bàyyi ko mu ñibbi këram illa ñu denc ko ci biir kaso bi parce que Sénégal ñun defar ko moo ñu tax a jóg te képp ku ñu mën a dimbali ñu defar dëkk bi àndoon nañ ci ak yow. képp ku jóg aussi pour yàqal ñu dëkk bi dinañ la tëj ci biir kaso bi wala yow sa àddina mooy yàqu waaye dëkk bi moom dina dem loolu nag y compris Ousmane Tounkara y compris Ousmane Sonko y compris Bassirou Diomaye Diakhar Faye y compris bépp sénégalais nag bépp sénégalais bu jóg te yàq moo la tax a jóg ci senegal pour man gouvernement bi dañu war a jël seen ay responsabilité ñu traduire la en justice ci contraire bi aussi bépp sénégalais boo xam ne suqali Sénégal mool la tax a jóg gouvernement bi dañ la war a dooleel donc Cheikh Yérim Seck convocation biñ ko convoqué tey bu fekkee ne amul preuve dañ ko war a tëj ci kaso bi une fois pour toutes te nag les sanctions doivent être sévères il faut ngeen comprendre loolu parce que mënu leen jàpp nit di ko tëj ci ay kaso ay heure di ko bàyyi muy génn muy def ay reewande déedéet nit bu def lu mu warta def dañ ko war a tëj ci kaso bi te surtout encore yenn nit ñi dañu dañu war a set day dañu war a set exemple ci ñoom comme ni ma leen ko waxee rek waa ji fi ne il a beaucoup de biens au Sénégal qui yoo xam ne mérito wu ko audité leen ko dina daw si ñëw justice Sénégal bu ñëwee ngeen ne ci ciix jàpp ci biir kaso bi ne ko li muy wax ci Bassirou Diomaye Diakhar Faye na indi preuve yi teg ko ci kaw table bi loolu mooy loolu rek mooy dëgg mais waratu noon nangu toog ci biir dëkk bay ay délinquant yoo xam ne parce qu'ils sont mécontents parce que mënatuñoo sàcc alalu réew mi parce que tëj nañu seeni ay robinet ñu génn di saaga nit ñi di xas nit ñi di di loo nit ñi te fekk nit ñi dëgg la ñuy wax loolu moo war a jeex ci Sénégal ginnaaw loolu ginnaaw loolu ma am loo xam ne dama koy yëkkati tuuti rek ci mbirum campagne yi ñu jëm may ñaan les gens qui communiquent de continuer de continuer à communiquer ñi nga xam ne ñoom ñooy communiquer voilà dama ñii nga xam ne ñoom ñooy communiquer nañu continuer communiquer ci dëgg te ñu ñaan leen aussi ngeen xam ne am na ay nit yoo xam ne ils ont détourné énormément de fonds et ils ont recruté énormément de jeunes pour leur aider à mentir maanaam amuñu programme donc ma leen di ñaan ma di ñaan loolu ñaan la bu leen daanu ci ay piège ñu bari ils ne sont pas éligibles aux élections ñu bari éligible ñu ci élections yi victimisation la ñuy lijjanti s'il vous bu leen fi tudd ay tur bu leen fi attaqué ay nit bàyyi leen rek ne teg seetaan leen ñoom ñoo leen gën a xamaatoo ne duñu dem fu sori waaye bu leen leen jox euh, buumu sauvetage ne les lancez pas la corde ñun nañu continuer ci suñu programme li ñu intéressé ñu bari ci yéen nag yéen ak may contacter Ousmane waxal ci lii defal ci lii déedéet fàtte leen fàtteku leen benn affaire rek le président Ousmane Sonko c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal biñ ko yëkkatee ba léegi photom nekk tête de te mu jàll te ñu mën a voter ci turu Ousmane Sonko képp ku mën a nekk candidat bàyyi leen ko mu nekk candidat je vous en prie Et je vous promets, à la nuit, à la nuit, encore lay waxaat à la nuit du 17 novembre 2024 di ngeen gis looleen leen mësta gis ci histoire du Sénégal loolu li ñu gis ci élection présidentielle yi sax moo koy gën a grave parce que bu leen fàtte ne cette fois-ci on a Ousmane Sonko en tant que tête de liste sa photo nañu continuer nañu continuer rek maanaam focus focus leen focus leen rek nee naa leen campagne bi ñun ñëppay campagne xam nga daan naa campagne keneen ak keneen daan nañu campagne waaye jàppee leen lu ma campagne oon bi yoon dinaa ko campagne quatre cent quatre mille fois plus maanaam quatre cent mille quatre quatre cent quatre cent pour cent fois maanaam bu doon cent pour cent multiplier ko par quatre dinañu campagne ba campagne saf bu leen leen faale bu leen leen may buzz bu leen wax ci ñoom bu leen leen lijjanti bu leen leen toppatoo bàyyi leen leen ñoom ñu nekk ci li ñu ne ñun ñu nekk ci li ñu nekk ñun ñoo yor doole bi ñun ñoo yor doole bi donc nag bu ñu jël suñu doole boobu di ci wax ci keneen yow di nga yor doole yow ngay mbër est-ce que mën ngeen mën ngeen ne vraiment Euh, Balla Gaye day génn di di di xas mbër bi gën a euh, kii euh, walla wala mbër yi gën a mag ci Sénégal dinañu génn di wax ci mbër yi gën a ndaw non non non non duñ ko def il ne parle pas de bu leen wax ci ñoom focus leen concentrez-vous sur quoi sur Pastef képp coalition Pastef képp la ñu wax bu ñu wax ci leneen nañu wax ci Pastef képp campagne bi bis bu ubbee benn bandi bu nekk ci suñu yoon bi ñu jël la sànni la fële romb la mais boo leen fi toogee nag commencé diw waaw mooy nekk lii diw warul te nekk lii bu leen ko def justice dina def liggéeyam justice xam na liggéeyam Sénégal guddi yi ñu toll nii justice yeggagul à cent pour cent nag ndax jub jubal jubbanti bi mi ngi en marche ba léegi waaye je peux vous garantir que ëpp na cinquante pour cent fi mu ne yegg na soixante ba soixante dix amaana donc li ci des pour mu doon cent pour cent bareetul may leen leen ñu jub jubal jubbanti ku éligible dinga dem ku éligibleul doo dem ñu nekkuñu ci ay mbirum victimisation nekkuñu ci ay tappale yéen concentrez-vous concentrez-vous leen sur l'essentiel ku laal Ousmane Sonko ñu jàppale daggate la cinq cent cinquante morceaux sànni la ci géej gi jëni lekk la mais ku laalul Ousmane Sonko duñ la laal loolu moo ñu intéressé voilà retournez les coups mais na donnez pas des coups inutiles yow nga war a dem ci championnat de boxe nga war a boxe avec peut-être les petits boxeurs c'est même pas les plus grands boxeurs ah les petits boxeurs ngay boksel yow nga jël sa énergie yëpp di ko dóor taatu garab après boo demee ci terrain bi tu n'auras plus d'énergie le plus petit boxeur peut te kawote bàyyi leen loolu xel xam ngeen li may wax yéen ñi xam conserver énergie mi ngi mel ni nga yor ay panneau solaire nga dem ci naaj bi wut say énergie yëpp pour consommer guddi yow ba bëccëg bi yëpp nga jël sa énergie boobu di ko sànni guddi bu jotee doo def sa énergie donc focus leen concentrons-nous sur l'essentiel essentiel bi mooy nañu fësal nag bandi bu génn di démenti lu gouvernement wax wala yeneen ak yeneen di di fenal gouvernement nañ ko jël teg ko ci table bi suñu homme de te yi def seen liggéey